Oh, prenez le gars qui parle là, prenez-le.

Oh, bien Talib. Okay, okay, okay. Oh, oh, doo dara. waaw yow da ngay tere yow. doo dara. man maa la ko. waaw yow. Libérez la voie, permettez au véhicule de circuler. non boo amee la ñu wax boo bàyyi nii yéegu ma oto daw fi. courant bi yéen a seet si loolu ñoo ko jël. waaw d'accord ko lii ñun ñëpp ko ngi nii boo leen waxee fu mu nekk góor a bu ko. avant la dictature. Libérez la voie, oh, la place, libérez la voie. Allez, libérez la voie. waay gaa yi dem bu ñu daw waay bu ñu daw waay. gaa di agressé tey presse ñu taxaw fi. gaa di. Nous, notre conviction est que le président Macky Sall et, son gouvernement doivent céder la place à une gouvernance patriotique. Parce que le président Macky Sall n'est pas un président sérieux. C'est ça notre conviction. Il est en train donc de semer le problème dans notre pays de cinéma. li may yëkkati mooy président Macky Sall moomu réew mi c'est dictateur nag waruñoo jiite ñun sénégalais yi nous demandons au peuple sénégalais de sortir et de faire face. parce que le pays ne lui appartient pas. il ne peut pas être se sucrer sur le dos des Sénégalais, faire leur prévarication, faire le niveau de corruption très élevé et demander au peuple. C'est inacceptable. le peuple oh, je suis là en tant que manifestant, en tant que dirigeant, en tant que membre. Euh, en tant et contre l'injustice et contre l'arbitraire, contre la hausse de Nous exigeons la libération de Guy Sagna Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de semer la zizanie en libérant Babacar Diop et quelques étudiants pour laisser Guy Marius Sagna croupir en prison. Nous ne l'accepterons pas et nous allons faire face. dama ni ñun

Il n'y de liberté d'expression. Ouais. dañu ñëw pour manifester de Thierno Bocoum droit parce que courant bi dafa cher comme ni ngeen ko xamee ñu ñëw waxal ko askan bi parce que askan bi moo ñu fi donc loolu moo tax tey ñu ñëw pour respecter notre droit loolu mooy loo xamante ne ne sénégalais yëpp dañ ko war a xeex parce que ñëw def jëleen ko mu dem kenn kenn du ko manifester loolu jaaduwul eh, moo tax ñu ne courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. wàññi leen courant bi. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher courant bi dafa cher. courant bi dafa cher. man kenn du fol sama caméra rek. yow taxaw suñu kanam nga naan yow yaa ngi taxaw si yoon bi naan sama liggéey laay def nga puus ma sama liggéey laay def yow eh, yaay kan moom mooy puus. Touré yaay moom mooy puus. benn la ko benn bokk yaakaar na sol se dit faire partie de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñëwoon ñoom képp koo xam ne yaa ngi wax say xalaat rek ñu jàppale yow. bu ñu fi bu ñu fi yem ça va chauffer encore bu ñu fi yem on a aussi nos camarades bu ñu leen bàyyee bu leen bàyyiwul ñëpp il y aura toujours d'autres dors qui vont continuer le combat. waaye fi yam courant bi dafa cher courant bi dafa cher bu la scandé tous courant bi dafa cher ñoom ñoo ko gën a sentir yéen jàpp ñoo ko gën a sentir courant dafa cher ñoom ñii dañuy dañ ko waxul rek mais ils souffrent aussi comme moo ngi noonu policiers yi ñoo ko sànni grenade lacrymogène ba tey oto baa ngi saxaar oto bi ordre des avocats ko euh, moom waaw waaye yaa Moussa yaa Moussa jaajëf yow fay ci wul ga fekk sa waay ay eh, lii ñaan police def waaw jërëjëf. dañ ko jël sànni ko ci ñoo ko def de. ñoo ko tey kii moom moom oto bi avocat sa collègue bu kooku am naa yow dugg. non yow doo wax ak ñun yow doo wax ak ñun yow amoo loo wax ak ñun yow amoo loo wax ak ñun loo wax ak ñun. maître nous on est témoin. benn sécurité. de sécuriser les biens des gens. ñoom ñoom ñoo ko waroon sécuriser rek ñu daw ñoom ñoo daw. ñoom ñoo daw ñoom. voilà oto baa nekk ni oto bee naroon tax bi ñuy wax ne oto maître Diop la am na quelques dégâts te ku nekk ñun ñi ko fekkee xam ma ne waaw voilà ils l'ont fait sciemment pour xool situation oto bi. moo mais ñun ñoo témoin ci affaire bi quoi ñun ñoo ko témoin moom suñu avis la soxla actuellement nii. demande de reculer. c'est bon ah, reculez vous faites votre travail c'est bon ok c'est bon vous avez pris les vigilantes c'est bon c'est bon allez-y ok c'est bon merci les gars merci ok merci voilà c'est bon c'est bon allez-y allez-y allez-y s'il vous plaît beneen angle xam def nañ constat bu bare def nañ constat oto baa ngi ñu ngi gis ñi ñu ngi circulé ci sécurité bi lañ bokk ci kaw journaliste yi dafa mel ni actuellement ñu wax donc tey liggéey bi defuñu dara pourtant defuñu dara lenn defuñu lenn lu suñu. ñu ne sa gars yi éléments yi ñu ngi ñu doon lacrymogène te defuñu leen dara. vous faites votre travail vous êtes dans. des manifestations de partir partez. restaurant la fii café la bu mu nekk circuit mais pour taxaw sax yéen dafa dem wala la am naa droit ma gaare mais doo ñëw fekk ma nga ne ay lii wala leneen wala s'il vous plaît <laughs>